jaajëfa tey jaajëfa tey sama gars yi Mister Shake la maa ngi Brooklyn New York gars instant yi dama ñëw defal leen benn vidéo ci Wally balaago Seck Akon dañuy waaj def benn link bu ma jógee bu foofu bëgg naa wax ci Ousmane Sonko bëgg naa wax ci Ousmane Sonko Thierno Bocoum fu mu toj Thierno bokkum fu mu toj ba yaakaar ne war naa mën a wax Ousmane Sonko ne dafa trahir opposition bi dafa bëgg yàq opposition bi yéen a may dégg léegi nañu commencé ci Akon ak Waly Balago Seck Akon ak Waly ñëpp xam ne ne neexoowuñu woon ndax Akon ak Wally dañ ci amoon benn coow bu rëy Wally dafa demoon DTV mu ne dafa bëggoon link ak Akon maanaam dafa bëggoon def benn duo ak Akon waaye Akon dafa ko jànni ci benn hôtel ne ko link du noonu da nga war a liggéeyaat ba ci kanam loolu la Wally Seck waxoon ne Akon moo ko ko wax xam nga kon nak tay buñu ñëwé gis Wally Seck ak Ekan ñu lonkondo lonko l'onkolo xam nga Ekan lonk ko di wax né ñi ngi une bombe ils sont en train de préparer une bombe c'est-à-dire un hit un hit euh, comme celui avec Youssou Ndour peut-être ou bien un hit comme avec les Nigérians Chop My Money Ekan avait fait Chop My Money

waxne wali Wally mom mo ñëw ci hôtel ba bëggoon autographe ak photo ak aykan mu top ko ci sonnal ko ci sonnal ko après nak ci lako ko ak aykan nee jour bobu ba wali di dem sax wali fayul lekam mok managem fayu ko lekkam dañu ñëw rek dem après ci lako mom mu fay ko wax joju newoon na fi cour bo ba nak gisutu ñu won aykan ak wali Seck mais par la suite lañu gis aykan avec le grand Youssou Ndour ñu def Nous daan bañ son songu hit au niveau du Sénégal Nous devons comprendre comprenez après ñu dem Bercy Youssou Ndour Bercy Nous ko xam nga devons def nañ ci vidéo kon vu faire, ñaar ñu vraiment li def ñu parce que Ekan on le présente plus Ekan c'est une icône man wayna ko te gis nga wok bu tase gersu dafa am sama ben way buma ma def temps buma defon temps yële billahi man ko dugal il y a 3 jours man ko dugal pour mu pour mu nekk iTunes ak Spotify moy I can be with you dama ko def version rap dugal nako ko bu génne nak dama bëgg ngeen dem ngeen déglu ko way bu neex la xawma ndax I dina may autorisation xawma ndax duma may autorisation mais sénégalais la comme mom musique am la jël musique be with you xam nga daal ci rab incha dina génn yéen may de kon euh, wokk bu la waaw mais nag kon nag bu ñu gisee euh, ak on les voit dans le même lieu ça ça nous réconforte parce que nous c'est ça que nous voulons nous voulons que Wally Sek devienne une star internationale et le link dont Wally parlait c'est exactement ce qui est en train de se tramer c'est ce qui est en train d'être cuisiné n'est-ce pas d'être préparé. Et moi, si vous me demandez, je vais vous dire que ce ne sera pas du mbalar Je vais vous dire que ça sera afrobeat. Man lola gum. Li am sens. Moi, wali Sek ak Ekan, nous def afrobeat. Afrobeat. Voilà bok, vous n'êtes afrobeat, vous n'êtes hip hop. Parce que Walisek Sek, il veut conquérir le marché américain. Il veut conquérir le marché euh, euh nigérien. Donc, ça sera peut-être un son ou deux

le Wali, euh, comment dirais-je, star international, euh, Bouboba, Bouboba, Faramarini, Khana, Dingen Content, disque d'or, Bini Khar, disque de platine, Bini Khar, lolu tamit da koy tijilat yenen duo donc li affaire la bo xamne vraiment ñu ngi koy rafetlu te yàkkamti ko yàkkamti ko ñu ngi ñu ngi ñaan nag mu gaaw te xam nañ dina gaaw xamnañ nañ dina gaaw c'est vrai que ci période Covid lañ nek xëy lo loolu tax day seen déroulo ak Chris Brown sen sen seen son génnul waaw gars yi loolu laa mënoon wax ci Wally Seck loolu laa mënoon wax ci Wally Seck di ko wax Ekan nag nee na noppil noppil parce que cat dafa gaaw kon nag ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla lafal cat ñu ngi leen di ñaanal euh, affaire bu génnee yàlla nekk un succès international un succès retentissant qui retentit dans sur toute l'Afrique léegi nañu wax ci politique Ousmane Sonko bettul kenn ne sëñ Mustapha si moom moo génn annonce bi mu PDS Khalifa Sall taxawu Sénégal ak ak euh, pasteur dañuy bolo dañuy bolo ngir xex Macky Sall ngir am mairie euh, yu beuri nek ay maire yu beuri lolou bang ko gis ay nit ko nit ku avec tout le respect qu'on lui doit fan la permettre attaquer Ousmane Sonko parce que nous ji Ousmane Sonko la attaqué Karim Wade nekku fi Khalifa Sall ñëpp xam nañ ne nitu jàmm la mais nous ñu Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko morom Issa vidéo vraiment dal na ko xam ñun ñoy kan rek continuer nga président Sonko mais yow foo toj sama vidéo Non la ko tuddé non la ko bëgg tuddé bok tierno bokum fan la toj fan la toj ba yaakar né mom warna mëna wax né ah Li ben alliance politicienne la xam nga di xas Sonko di xas Karim di xas Khalifa Sall di wax né ñom duñ fi xex euh Ablaye Wade xawma xex euh, Idrissa Seck xex Macky Sall ñew fi tay nous di dañuy alliance mais moom mais moom kañ la fi a Idrissa Seck man def une vidéo mais le boogum moi je je le connais pas tellement le boogum je je le connais pas man wax qui ne ma ci Idrissa Seck la le xam nga dit il bu di wax il ah, dafa Idrissa Seck il man il il mais 2019 mais il da nga fi dem Idriss ah yo, Bougane wa bala may fatte Bougane Bougane tamit gis niko mu Babacar Diop mais Babacar Diop fan la le professeur là le professeur d'université mi nga xamné un un un combat solo à lui seul xawma sax man la la don casse bañu japp ko <coughs> je m'excuse xawma la la fi don le tan yi le ko quelques semaines mais ça ne vous donne pas le poids politique nécessaire d'être dans la coalition des quatre grands. La coalition des quatre. Papa Diop, yaa ngi doog a juddu Thierno Bokoum, xaw député ngone, woon mais yo Idriss Seck moi la defar comprendre si vous ne pouvez pas venir vous ranger derrière Sonko la moindre des choses c'est de je vous m'excusez du terme c'est de la fermer un peu xam nga waaw yéen li parce que yow dégg naa ko seen TV am ku ko wax ñu ne ah, ah, bokkum yow amulo parti mouvement nga am mouvement nga am mais bu dee wóolu nga sa bopp lu tax waxoo ne da ngay nekk maire demal nga présenté wu nga nekk maire mais ngeen bëgg rek le wagon Sonko ñëw daal di yóbbaale leen mais dafay yomb kon man mi bu ma neexee tey naa dem Sénégal naa dem Sénégal ma ubbi parti parce que dégg naa Babacar Diop mi ngi jéem a ut récépissé pour parti joxuñu ko ko. ah man monsieur Cheikh téeméer dellu Sénégal jëm fexe créer benn parti rek ne am naa parti ba pare nag attaque Sonko ne ko damay bokk c'est pas comme ça que ça se passe même même Bougane bi nga xam ne moo la ëpp poids yow cenn bokkum parce que tojoo fenn Bougane sax mën nañu wax ne xaw na am na fu mu toj ndax lu bon bon mu ngi doon góorgóorlu du ut ay parrainage dem stade Amadou bari xam nga lu bon bon Bougane gis nañ ko fële euh, euh, euh, Sonko bu mu amee problème mu sol tréem dem même bu fekkee ne sax da ko doon def ni euh, science op wala pour sauver bopam mais batay lolou ce sont des crédits yo xamné meun mën nañ ko jox Bougane Bougane lu bon bon il est partout fu Macky Sall dem tib tank mi ngi osé mi ngi créer Bougane au moins hein, il a une chaîne de télévision très influente loolu sax meun nañ ko waxal Bougane mais même Bougane même Bougane du mappandoo Sonko même Bougane il n'a pas le droit de s'afficher avec Babacar Diop pour tirer sur Konko Sonko et sa coalition Bougane Bougan, tu as, tu as un avenir radieux en politique, mais, mais tu n'es pas au niveau. Tu n'arrives même pas, tu n'arrives pas son à la cheville. Il te reste beaucoup de travail à faire. Parce que, euh, euh, euh, tu es un homme très intelligent, n'est-ce pas Tu fais beaucoup de recherches dans tes, dans tes, euh, sur, sur le système. Les ploys, en général, tu as des chiffres, tu des recherches, tu te déplaces sur le terrain. Tu es un mais tu dois te ranger derrière Sonko comment te ranger derrière Sonko on Nous le plus Sonko wax rek ànd les ci nga comprends comprendre maire maire yi munoo Mère maire pas la faute à Sonko Barthélémy Diaz peut prétendre <coughs> à la mairie de Dakar parce qu'il est déjà maire de Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Diaz, il a une histoire politique n'est-ce pas qu'on peut retracer mais même Barthélémy Dias nous Nous ñu bëri waa Pastef ñu ko rek rek ci une live Mame Sen, discuter Mame Sen, dem ngeen abonné c'est une femme très intelligente vous Nous ci mais gis nañ Nous ñuy nous Pastef gis nañ ñuy euh, activiste yu Nous Mame ak euh, Fatoumata Danso parce que Mame Sen mi ngi nane Fatoumata Danso dafa dajale won ne xawma Euh, ay ay carte membre la xaw ma yu mu jaay bu ko jox waa Pastef waa Pastef geddu ko mais loolu c'est incroyable parti boo xam ne dañu nit da lay indil ay ay ay militant ak xaalis ngay siis di dàq ay jigéen jigéen yoo xam ne dañu am audience ah ñoom maam seen avant Pastef di juddu moom yàgg na génn di def ay live Fatoumata ko mu leen xëy rek di wax ne dafay saaga parce que Assane Diouf bi ngeen jël tey teg ko yëkkati ko teg ko ci kaw kenn dàq ko saaga xam nga loolu benn parenthèse la woon wax waa Pastef ñi fi nekk fi di jaay ay cadre les cadres de Pastef mais lan cadre lan yéen dàqu leen ñu jàng comprendre leen ëpp leen ñu audience parce que ñun au moins am nañu ay show c'est pas parce que comme ni ko maam seen waxee vous êtes en costard tout le temps ah ngeen yaakaar ne yéen ay cadres mais maam seen war na dafa war a nekk cadre Pastef parce qu'elle travaille pour pour pour pour Pastef n'est-ce pas elle a yàgg na di xeex pour passer. jéemu ci chercher rien en retour man maa ngi ni soxlawu ma poste mais gënu leen ma nekk cadre billahi wallahi taalaahi parce que damaa jàng même bu doon sax bag rek bag rek boo ko amee war ngaa mën a nekk cadre man nag maa ngi maîtrise en anglais civilisation américaine pa maam seen jàng naa parce que boo déggee nu muy agence idéem nga xam ne jàng na mais pour revenir lu mu wax ci Barthélemy Diaz nee na Barthélemy Diaz waruñu maam seen nee na moom d'accordul ci alliance bi ñu bëri d'accordul ci comprendre nañ ko parce que Barthélemy Diaz papam Euh, euh, euh, Jean Paul Diaz ci Macky Sall le bok. Barthélemy Diaz mënuñ ko fal mu dem ba ci bir mu def ko Moussa Sy loolu dafa wax naa ko sama benn vidéo mais ba tey ba tey Barthélemy Diaz dañ koy jox chance l'essentiel na fi Macky Sall jógee ñun Barthélemy moo ñu gënal Diouf Sar. buñ jógee fofu Seigne Moustapha Sy momit it buñ demee ba ci bir mu beddeeku grawul parce que législative bi bu boba lepp dina lèr. mais pour le moment alliance bi ñun dañu amul choix parce que Pastef liguey bi ngeen waron def mam seen wax nako defu len ko yéen waron bind seen xalé fexe xale yi jot seen carte defu leen ko nag moo tax nag tey ngeen xam ne boo leen demee ci élection yi am na nu muy demee lii waa APR di ngun-ngunee di wax Pastef du am du gagné benn commune loolu la waa APR di ngun-ngunee loolu waa APR di ngun-ngunee doo leen gagné benn commune looloo tax nag alliance bi am na sens waaw parce que ñun nous sommes majoritaire dëgg la mais nag ñuy xale yi binduñu parce que Pastef millions yi ñu leen di jox yëpp millions yi leen di jox yëpp il y mois da ngeen waroon dem wàcc ci bi dem ci xale yi neexal leen fayal leen utal leen ay carte bindu leen defu leen ko nag moo tax tey alliance bi am na sens mais nag loo on n'a pas le choix Mame Sène man loolu tax man ma ànd ci alliance bi mais Thierno Bocoum na téye làmminam buggaan na téye làmminam bu ñu bëggee ànd ak Sonko nit ñoo ànd Sonko sans sans sans bu ñu jéem a wax dara bu ñu jéem a wax dara mënu leen nekk maire lenn mën na ne ànd leen ak Sonko ngeen jàppale ko ci ci ci maire yi législative bi bu ñëwee législative bi bu ñëwee laa xëy na mën nañ la jël yow Bougane wala Thierno Bocoum ñu def leen suñu liste pour ngeen jéem a nekk député boo leen nekkul député garaawul bu ñu nekkee président bu boobaa ñu jéem a xool comme yéen poste rek ngeen gëm yéen melu leen ni ñun ñu ñi nga xam ne activistes yi dañuy liggéey pour Sénégal comme yéen poste ngeen gëm mais bu boobaa ñu jox leen poste poste fenn jàmm nañ ñooy Macky Sall jóge fi man daal loolu laa leen laa like leen partagé leen abonné leen Mister Shake la gars yi ba ci kanam